doonte tey bis bu xat la ci bépp sénégalais rawatina journaliste parce que ku nekk xam na ne suba liggéey bu mag mu ngi leen di xaar te tereewut euh, li ñu doon def nii euh, ñëw ngeen ci comme ni ngeen doon ñëwee ci événement yu passé yi euh, ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ciy gërëm di ñaan yàlla mu ñu fekkewaat ko yeneen i yeneen yeneen événement te ànd ko te fekk liggéey bi ñëpp am wér liggéey bi di gën a dox euh, jataayu tey bi dafa nekk ci ñaari tomb tomb bu njëkk bi dafa aju woon ci euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko set ak waa FDD mu nekkoon benn déclaration boo xam ne euh, communiqué la waroon a doon bu waroon a def waaye pour mu gën a yaatu ak mu gën a matale ñu boole woon ko ak suñu ndaje mii ñuy def muy euh, euh, ndogu bi ñu doon def nga xam ne FDD ak karawaan euh, bi ñu àndaloon doon def campagne électorale ñoo ko doon def moo tax ñu njëkk a jox mam Birame mu déclaré li nga xam ne mooy kàddu FDD FDD nag moom li ko yëkkati woon mooy défense pour la démocratie Sénégal léegi nag ku ne xam na ne képp koo xam ne da ngaa sos kuréel wax xam ne défendre euh, démocratie réew mi moo la itteel yaakaar naa ne kon suba bis la boo xam ne dana la itteel parce que suba la ñuy def élection bi gën a mag muy élection présidentielle euh, réew mi yëpp di war koo def suba mu am ci loo xam ne ci askan wi la aju ñu war cee wax ak ñoom maam Birame wax na ko comme ni mu ko war a waxee mu des ci leneen loo xam ne ci état bi la aju. maam biram wax na ko comme ni mu ko war a waxee euh, kon loolu lañ doon bëggoon mu jàll ci kaadaru FDD bu dee lu jëm ci nag suñu jataay bi euh, dañ doon ànd depuis campagne électorale bi tijj ak tey muy sëñ Mara Niass mi ak Mor ak Soxna Aji mi ak Amina ak Makhtar ak Maam Paate Mbay Ousmane Sonko ak Yarga Yarga Sy ak Lamine Niass Ndiaye Touba Lammiñu Daaru ak euh, soxna Selema jàkkaarloon mooy kiñ ñu xaañoon ak oustaz Thiep ak soxna Rama ak soxna sëñ jàppoon Daaru Moxti nam tuddati sax euh, waaw waaw moom bëggul sax ñu tudd turam ak ñeneen ak ñeneen daal ñoo xam ne nii euh, ñu ngi ci ak ki may wooyee RC ñoom ñëpp ak Daouda Niang ak garde corps yi nga xam ne ñu ngi doon ànd ñoom ñëpp ak Baye mbay ak euh, ñëpp daal parce que noonu la demee waaw ñu ngi sant nag bu baax coordinateur Pastef yi nga xam ne ñu ngi ci département yi yëpp euh, yiñ jaar fu mel ne Daaru Muxti ak fu mel ne Louga nga xam ne Abdoulahat Ndiaye lañ fa fekke woon ak Ndar ak fu mel ne Ngumba Ngéewul mel na fo mel ne Kébémer Sagata ak fépp foo xam ne rek jaar nañ fa fekk ak ba ci sax Dakar fii Medina ku mel ne Ousseynou Ly ak euh, Diop maire Pikine ak Bilal jaata ak mboolem coordinateur ak responsable Pastef yi nga xam ne ni ñun ak ñoom ñoo àndoon lii ñuy def parce que li ñu toppoon ci ay nit ak Amadou Ba Thiès ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké waaw parce que li ñu àndaloon ci ay nit ku ne xam na ne loolu ak maître taal ca euh, Mbour parce que karawaan bi ni mu doon réussir ak doole jëm àndaloon loolu ku ne xam na ne du sama doole man mii di Cheikh Bara Ndiaye te doole yi sëñ Mara Niass mii waaye doole yi Pastef la ak doole yi président Ousmane Sonko ndax fu ñu mën a dem ak njabootam bu ñu ne ña nga fa ña nga fay ñëw ñoom ñooy jóg Euh, sol seen dàll taxaw ci buntu dëkk ba ñii war seeni moto ñii togg seeni añ ñii génn seeni néeg di ñu teeru di ñu tatagal di ñu tàccu di ànd ak ñun ba keroog ñuy génn dëkk ba ndog loolu togg seeni ndog itam jox ñu ko bu ñuy dem sax ñu bari yëkkati seen alal joxe ko waaw léeg-léeg sax am ñu yëkkati ba koo may sëñ maaraam mi comme parce que yëpp nag xale bi dama leen koy jox ngeen yóbbaale ko waaw waaw loolu yëpp da ci <laughs> loolu yëpp doon xew ci yoon wi waaw <laughs> ah. waaye barki démb Cees rek am na ko indi rakkam di jigéen naan ko léegi sëñ Mara dama la koy jox <laughs> comme ça nga yóbbaale ko bu ko defee waaw ah. man nag xam naa ni ah am na de Cees man nag sëñ Mara mujj na mu nekk kobas naa ma wuy wuyul sa maire yi parce que man am meer moom man maire sax bu jub see di daw damay xam ne ci man la jëm si même bu ma fasee sama kanam sax bu ñëwee day kopp day wax maaraale ko wool ma Cheikh Bara ba nekk waaw maire yi moom ak paa yi moom vraiment aw ma seen fay waaw xaw ma nag lan laa leen defal wala lan laa leen def loolu moom bu ma ko xamoon sax dinaa ko dindi nag li ma def maire yi moom bu ma ko xamoon moom moom lu may seetaat la parce que toppee nañ ma mbooro lool <laughs> maa ngi gërëm maire yi ak paa yi ñëpp nag waaw vraiment wax dëgg yàlla man seetlu naa daal loolu daal jaaxal na ma wala xale bu jigéen sax day ñëw ci man ma defee ne man sama fan sax la ma ne ma sama yaay moo la bëgg <laughs> ma ne ko ah ma wool ma ma ne ah man de li ma daal baaxut man <laughs> ma def na ah, daal. li ma xam naa daal moom moom moom affaire bi ni mu tëdd daal moom amul démocratie dara moom ci côté yi waaw mais nag sant nañ ñëpp daal loolu rek lañ bëggoon a wax parce que suñu ak Mansour Ndiaye bu bu bu bu ngumba ngeewul mm-hmm. keroog bi ñu ko nee ñi ngi ñëw ngumba dakaar la ko fekk ñi ngi ko wax 15 heures mu départ jëm si ngumba bi mu ñëwee ndogu bi mu ñu defal ndogu boobu kenn mësu koo gis fenn ndax xéewal yu bari bi ñuy dem mu yëkkati alal ju bari teg ci sama loxo ne def lañ ko ci essence taalaat otoom ñibbi Dakar waaw kon kooku vraiment loolu ku la ko def loolu rek xam nga ne te loolu lépp nag ñun xam nañ ne ginnaaw yàlla président Ousmane Sonko la rek parce que euh, nit ñi dañoo am fuñ toll ci Ousmane Sonko ñun itam ñu am fuñ toll ci Ousmane Sonko suñu yéene ci moom moo tax ñu jóg maaraam yi journée bu mu bàyyi Dakar rek mën ngaa wax ne bàyyi na ay yitteem yu bari ak ñi fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw man mii sama kër gi bis bu nekk téeméeri nit dana ko mat ñoo fiy ñëw xëy suba nekk fi daanaka 6 heures du matin boo yeewoo da fi fekk nit ñi ba keroog guddi nit ñi duñ fi jóg daanaka depuis campagne bi tàmbali ak léegi amul benn bis bu ma fi yenn toujours maa ngi ci àll bi ndogoo nañ ci kaw oto yi xadde ci oto yi yo toog ci mbedd yi di lekk ceeb ba lépp def nañu ko waaye nag bale fetal yi bale fetal ci oto bi waaw yooyu yëpp rek waaye lépp nag bu ñu ko xoolee rek damay daw ba mu yàgg ma ne waa li may def nii baa jar na ko ma xalaat ne ah, waaye Sénégal jar na ko Ousmane Sonko jar na ko kon nag su loolu amee tey man maa waxoon sëñ Mara sonn nañ parce que ñu war a wate ji feneen sax dafa bari waaye nag mënuñoo ànd léeg-léeg sax ndogu jot mu fekk la ci position yoo xam ne doo ndogu bëgg a yàkkamtee seex ma ba continuer li ngay def kon bu tey ñëwee dinañ ñëw euh, surtout xale yu jigéen ñi sax man tey bi ñëwee ñoom ñëpp dama leen doon laaj noo sant ak xàmmeetuma leen parce que dañoo nekkoon ci affaire yi solu ba mu mel ne góor waa tey nag moom ku kenn ku ne ñëwoon rëdd yi bëtam ku ma nuyu mën a la yow kan sax du ma la xàmmeet parce que dañoo sensé waaw kon day normal sax ñu ñëw fii tey ndogondoo fii ñu wan ma seen vrai couleur ma xàmmee leen <laughs> sol taille basse mu ah waaw ah. léegi nag loolu moo waraloon ndaje mi di sant bu baax nag sénégalais yëpp surtout waa parti Pastef encore une fois ndax dof rek ngay defal teraanga te du ko xam comme waa Pastef ni ñoom ñëpp di yëkkatee seen téléphone di wax sëñ Baara waxal sëñ maaraam maa ngi leen di sant yéen li ngeen def fii nii nangam nangam comme mën a doon ba ci Basiru Jomaay li muy xat-xat yónni na. nit ci man mu ne ma gis nee na mi ngi gis lépp lépp lu ngeen def rek mi ngi koy gis mi ngi leen ci encouragé bu fekkee am nga lu ngeen soxla tamit ngeen wax ko même président Ousmane Sonko bi mu gisee Mame Pathé li mu ko njëkk a wax mooy ana sëñ Baara ne ko wax ko lépp lu muy def rek ñi ngi gis karawaan yi ñi ngi gis lépp loolu ñu ñu defal ba ci moom Amadou baag ñoom biram Souleye ak ñoom mi Touré amu ci kenn koo xam ne nii ci coalition Diomaye président nga bokk te liñ def woote woo wala nga ñëw ba ci ñun nga rafetlu ko loolu noonu la demee kon ñun itam ñu ay dof te duñ ay baadoola loolu ñu ñu defal xam nañ ne ñoom defal nañu lu ko ëpp te li ñu li li li noonu ñu ñu sant ñun war nañoo sant ñun tamit ñi nga xamante ne su affaire bi réussiree ñoom la du ñun ñoom la du ñun donc euh, bu ñu demee Louga rek boo amee loo bëgg rek kenn ku nekk day daw dem këram defari ko parce que dañuy mel na rek président Ousmane Sonko lañ gis loolu nag lañ ne woon mënuñu ko toogaale te à partir de élection yi bu jàllee tey daal la gën a placé pour ñu sant leen gërëm leen loolu moo tax ñu daje fi euh, pour santante gërëmante te man itam en particulièrement nag maa ngi sant ñi ma àndaloon man parce que moor mii parkinam la yor ca West Foire daf ko vidé ba amul oto bu fa des ñu waat ay oto dolli ci sëñ Mara mi ay millions yu millions yu millions def na ko ci li jaar ci sama loxo bi ñëw ci moom parce que karawaan bi ñun amul benn benn benn benn dërëm bu nga xam ne dañu dem ci responsable Pastef yi wax leen jox leen ñu ñu dem def karawaan ñun ñoo am suñu idée bopp ñun ñoo dajale suñu xaalisu bopp doon ko def donte lu ñu xeeboon la sax ba dugg ci dem nañ ba ci biir mu coté seer trop day metti ba gars yi na noonu nan woo euh, waa parti bi wax leen ko man leen loolu bu ñu ko defee rek man damay ñibbi parce que affaire bi day échec kon parce que ñun li ñu bëggoon mooy ñoo koy defal suñu bopp nañ ci continuer nekk ci ba keroog muy mat amul benn pas benn responsable Pastef boo xamante ne euh, ñëw nañ ci yow hmm? waaw euh, ñëw nañ ci yow di wax ay jox ñu dërëm wala jox ñu ñaar dërëm li doon def ñun ñoo doon dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar sëñ Mor mi def na ci lu man maam ba Mara mi Nourou euh, ak Matar ñëpp après nag maa ngi sant presse bi Feeling dakaar ak euh, Sunugal 24 ak euh, ak Sans ak Solution TV sooy bu Diop ak Sa Ndiogou Mbeng ak Ngone Saliou nga xam ne dinañ ko dénk directeur RTS kooku man maa la ko wax bu ñu dàqee Racine Talla yow yaa fay nekk parce que yaa dàq diffusé ci Sénégal moom waaw topp président de la rep de la de la Topka Ngoné Saliou <laughs> eh, ñu ngi leen di gërëm beneen li nga xam ne rek dinaa ko tëjee jox sëñ Mara mooy comme am nañ occasion bi tamit suba la élection yi ñu soññ doomi Sénégal yi ñu génn massivement wote wote bi. Euh, dafa nekk loo xam ne bu kenn jàppee ne benn bis dong la jërul may dem suñu dëkk wala benn bis dong la jërul may dem jógee Dakar ba parcelle wala loolu parce que tabaski benn bis dong la te da koy da koy xottil yére ñawal ko dajale ci xaalis ndax moom euh, dem def sax pédicure manicure jigéen ñi léttu ji lu ne nga dugg ci benn bis dong la te mën nga ni sax ab yoor-yoor la bëccëg dong la ndax da ngay dem julli ji ñëw rey sam xar daanaka sunna sa mat na. su fekkee tabaski mën na loolu da ngay xam lan mooy tabaski dayo bi mu am moo tax nga beral ko bi loolu élection nag mooy benn bis bu nga xam ne day mooy baaxal tabaski di baaxalu korite di baaxalu màggal di baaxalu gàmm di baaxal ngénte yi di baaxal ciit yi kon moom moo gën a nekk sax farata yooyu ma tudd yëpp parce que tey ji màggal geeg gàmm gi ku ko xool bi mu fi dajee corona euh, daanaka rek kenn xamul loo tabaski kenn xamul loo korite kenn xamut loo màggal kenn xamut loo gàmm kenn ku ne daw sa morom te loolu lépp maanaam jafe-jafe la woon boo xam ne dafa am lu teg woon suñ kaw te état bi amul woon doole yi éliminer ko suñ demoon ba amuñu état bu taxaw tey benn feebar rek benn nit rek mën naa dem fee am infection ñëw wàlluñu ko dëkk bépp raaf ñëpp faatu loolu possible la ci mu am ci àdduna ndax nit ñi dañuy wopp di wàllante suñ maam ya 1914 ak 1918 ak maanaam jamonoy peste ba da nga daa gis famille bu lëmm ñëpp dee ba jeex parce que dafa amoon pest lu mel ne ay Médina yii peste moo taxoon nit ñi jóge biir Ndakaar si bilaataa nga ñu dëkkoon daw bàyyi fa seeni kër bàyyi fa lépp dem sañcaat beneen dëkk ba taal dëkk booba maam Thierno Ibra Fatimi dëkk na cib dëkk 1914 defe naa non avant 1914 sax la neuf xaw ma mu dëkk ba am pest bi mu ñëwee dafa génnee njaboot gi lakk dëkk ba dem yoonam loolu lépp jaar na fi kon li mën a tax nit ki dund gu ñoom mooy ab état état boobu nag kenn nit moo koy jiite kenn nit kooku nag jikko ji mu yor ak bëgg-bëgg bi mu yor ak xel mi mu yor ak xalaat yi mu yor day dal ci kaw dix-huit senegal sénégalais yëpp looloo tax ñi di ko seet di ko seetaat di ko tànn di ko tànnar ginnaaw bi ñu tànnee nag ñu am nañ fukki candidat ak juróom-ñeent suba la ñu war a jël kenn nag maanaam jëbbal ko réew mi ne ko yaay doxal fii juróomi at jégglu juróomi at nag mu ngi nekk 1868 jours defe naa yoo xam ne bis bisub suba bi moo ko war a baaxal maanaam 1868 jours su bis suba bi bu baaxee mën naa baaxalaale 1868 jours yooyu boo taat lu ëpp 60 mois boo 275 mois semaine yooyu yëpp nekk ci benn bis nga ban ko cee tànn mu defaru ci wala mu yàqu ci kon doomu Sénégal bu nekk nag génn jàppee ne lii jaamu yàlla gi gën mag la ndax bàyyi ñax si mi nga xam ne nitug yàlla la woon ku mag waxoon na ne koor gi bu naree yàq élection yi nu bàyyi koor gi te élection ba noppi fay koor ndax koor dees na ko lépp di ko fay te élection moom amoo kàttanu àndal ko amoo kàttanu jegal si ko liñ ci santaan rek nga mën a def kon loo xam ne nii nitu yàlla ko toll ne Cheikh Ibrahima Niass fatwaa na loolu te lu mu fatwaa ci diine day taxaw kon loolu da ngay xam ne rek li la bëgg wax mooy wate wate day farata ju rëy ci bépp citoyen ndax avenir u ndaw ñi ëllëg la di avenir réew mi kon nag ñu ngi leen ci woo woo gu tar woo gu ku laay wax ci sama xol ak ci sama xel su ma mënoon a digle damay wax maa ngi koy digle su ma mënoon a ñaan damay wax maa ngi ñaan su ma mënoon a soññee damay wax maa ngi soññee ci gépp kàddu pour sénégalais yi suba képp koo xam ne yor nga carte d'identité te mën a wate nga génn dem sa kër génn sa kër dem ca bureau ba nga war a watee fexe ba matal devoir bi xam ne séq nga ak Sénégal ndax boo ko defee suba juróomi at la ñuy toogaat doog koo defaat kon nag président Macky Sall gis ngeen ko ni mu bëggee woon a fomm élection yi waaye bi mu ko bëggee fomm ku ne xam na ne bëggoon na loo xam ne yombut te dem na ca ba sonn mujj ko man ndax wate farata gum nekk farata ci nit moo tax conseil beeg àdduna beeg ñëpp di xeex ak moom ne ko doo ko fi àndale parce que li nga bëgg a àndale dafa rëy ci nit ñi kon bu adduna bi mënee jóg xeex ak Macky Sall homme de droit yi société civile bi syndicat yi xeex ak Macky Sall bañ fixé bis bi ba bis ba yegg si yow yëgoo ne lii farata la kon ñi la doon xeexal sax day mel ne lañ doon xeex jëru ko woon ci yow kon woo nañ ñëpp di leen wooti di leen woowaat ngeen ñëw wote si tey nag du bis bu ñuy propagande di wax wateel leen diw wala bu leen woteel diw ndax loolu euh, kii mayewu ko waaye nag ñi ngi sant tey ñaanal yàlla fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo war a joŋante suba. di ko tàmbalee ci euh, Mamadou Amadou Ba Bassirou Diomaye Cheikh Tidiane Dieye Habib Sy ñoom Idrissa Seck Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom Serigne Mbuub euh, mam Aline Mamadou Dia Boun Abdallah Ndione ma euh, ak Mamadou Lamine Diallo ak professeur Daouda Ndiaye mbooleem daal ñi nga xam ne ay candidat la ñi ngi leen di ñaanal bon élection yàlla may leen wér may leen kàttan ak Aliou Mamadou Dia bu Pire may leen wér may leen kàttan ba seen bis bii suba ñu dugg ci ci jàmm wate ci jàmm mu jeex ci jàmm te lu ci sénégalais yi dogal yàlla na may leen xol bu ñu ko nangoo parce que tamit man de ñam naa wër naa Sénégal xaaju Sénégal sax laay wër naa ko fii ma toog di wax ku ma xool sax xam ne wéruma damay dem nii rek metti na méttit woo xam ne wër réew mi boole ko yor sa alal di ko sonne di dem te loolu lépp nag bu loolu lépp bu jàllee maanaam euh, itte ji senegal la rek kon nag ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp kaw ba suuf yàlla sàmm leen aar leen euh, li gën ci sénégalais yi suba yàlla na ko yàlla def sénégalais yi tànn seen seen seen njiit ñoom ñooy candidat yi bu ñu leen gañee ñu nangu ko résultat yu sénégalais yi def ak fu mu mën a jóge ak fu mu mën a jëm seen xool nangu ko dañ apprécier ko xam ne ñoom ñëpp defar Sénégal la leen taxoon a jóg ba ci xalifa Sall fàtte woon naa ko <coughs> defar Sénégal dong leen taxoon a jóg te sénégalais yi ñu bëggoon a defaral lii lañ tànn kon nag avec fierté nangu naa ko nangu gu wér te maa ngi koy ak Malick Gakou tudduma ko waaw nangu naa nangu gu wér ci lis ak Déthié Fall nangu gu wér gi nga xam ne sénégalais yi dogal nañ ko. ci ne diw mooy jiite démocratie noonu la tëddee ñu nangu ko te yàlla may leen jàmm ñu ànd defar réew mi euh, di wax vive Sénégal vive démocratie wasalaamaaleykum. sëñ bi xaaral hmm, dama waaw après ma jox nga sànni ndax damaa bëgg journaliste yi.